pour leneen xam nga discours a garaaw ngeen nekk di tenir li ma la garaaw garaaw ngeen nekk di tenir xaw ma ndax yéen ngi mesurer yéen li ngeen di wax maanaam dayoo bi ma bu ko ko accepté defal ndànk xam nga yéen président dafa jël décision boo xam ne yéen wóor na leen wóor yàlla dafa jalgati constitution jël suñu constitution teg na le wax nañ ko fi ànduñu ci defal ndànk jël suñu constitution teg na le faalewul waa waxtaanul deful dara moom cundum moo wéet ci néegam génn jël décision bu ko neex boo xam ne teg ko ci texte teg ko ci loi teg ko ci xam-xam teg ko ci xel mu rafet teg ko ci dara ci nafsu bakkanam képp la ko teg yéen ngeen taxaw fi léegi nañu Macky Sall warul mënul dellu ginnaaw ci décision boobu te yéen itam li ngeen ñàkk a dellu ginnaaw boobu dama dellu ginnaaw du ko def waaye léegi lan moo tax ngeen jàpp ni Macky Sall dellu ginnaaw léegi opposition moom moo war a dellu ginnaaw wala peuple bi nga xam ñoom ñoo ko jox mandat boobu ñoom ñoo a dellu ginnaaw léegi bàyyi Macky Sall muy def lu ko neex ñu dem di toog ak moom di wax mais sëñ bi ngeen wax nii c'est il faut dire à Macky Sall que li mu jël moo dul yoon moom moo war a dellu gannaaw discours boobu kese ngeen war a tenir. dina ko defoon du ko def loolu c'est à voir mais yéen waroo leen tenir discours. on est on est dans un état de droit. on est moo tax nag Macky ngeen war a njëkk a tàmbalee moo tax nag Macky ngeen war a njëkk a tàmbalee. li ñuy wax Amadou moom ak yenn kilifa yi ñoo yem yéen bu ngeen gisee rek liñ liñ def seen journaliste yi bu ngeen gisee liñ def seen mbokk journaliste yi barki démb Ndiaye ah le mal man beneen discours ngeen war a am bu dul naan Macky Sall du bàyyi yéen a war a dem jàng am na loolu lu ngeen mën a am loolu problème ñu régler mais dégg nga ma la mais li jënd leen ko ñun ñu leen de croire que maintenant cette affaire c'est l'affaire des politiciens lii ce n'est pas l'affaire des politiciens c'est l'affaire de tous les Sénégalais wala bëgg ñu comprendre kii kii li ñuy waxee day mel ne mooy politiciens yi daal ñoo war a dem toog ak sa dem dialogue di jënd affaire loolu lii du problème non Abdou soo ma dégloo ma wax la dama ni yéen da ngay ne ndax sénégalais nan la leen président Macky Sall président mooy nax Sénégal yi Macky Sall mooy nax mais xam ngeen ni que lii mënatul nekk. ba pare. toog leen ngeen seetaan fi ñu jëm. mais Macky décision peuple bi leneen la bëgg xanaa léegi nekkatu peuple bi nekkatul nekkatul moo souverain nag. wala nekkatul peuple bi moo souverain mais fi mu ne nii a plus. lan moo amati pour lu ñuy waxtaan ñu demee ba yow ñu demee ba ñu demee ba yow ñi la jox mandat ñi la fal da ngay jël décision ñoom ñëpp ñu taxaw ànd ne mais foofu lañ toll maintenant c'est quoi la laa la wax solution bi ngeen di bañ a dégg laa la wax Sénégal yëpp laa la wax ñoo war a am un seul discours mooy Macky Sall lii mu def jaaduwul teguwul ci yoon moom moo war a dellu ginnaaw waaye nekkul acteur politique yi lañ naan yéen dellu leen ginnaaw dem toog a Macky Sall négocier waat. nan la ñuy pour 6 mois après ñu tollaat ci yéen xam a. dugg fële dem wax ba pare génnaat wax le contraire. Mm-hmm. Sénégal di takk ñenn ñi di dem seetaani final. nga ne yow da ngay woote. xam nga xam nga c'est-à-dire que. non non Kajoor bul jël Kajoor Kajoor bul jël. nañu waxante dëgg c'est-à-dire loolu moo fi nekk di censé de la population. bul jël benn échantillon rek. merci def loolu am na ñoo xam def ñu loolu tamit da xool ñooñu